Sénégal nit ñi dañoo bëgg naturellement dañoo bëgg diine nit ñi moo tax koo ciy bëgg nax rek ndeysaan soo ko jaaree ci diine rek da koy nax ñu bari dañ leen nax jaar leen ci turu diine allahu akbar ñu bari dañ leen nax réeral leen sori leen diine mais ci turu diine ndax nit ñi naturellement dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg diine moo tax boo boo taxawee ci mbedd bi sax commencé ñaan sax nit ñi bu ñuy romb sax taxaw di wax amin ndax dañoo bëgg diine yal na yàlla def jàmm Sénégal yal yàlla boole ñun ñëpp ci ay xaritam ñi nga xamante ne dañoo sori yoonu aljanna yàlla yàlla delloo si leen ci yoonu aljanna ñun ñëpp yàlla yërëm ñu dugal ñu aljanna aljanna yaatu na ñun ñëpp xëj nañ ci waaye mbokk li ñuy fàttali rek mooy nañu delloo gëdd borom bi subhanahu wa taala wa ma qadarullah xaqa qadari mooy pour suñu jaamu yàlla ñu mën ko jox sens dëgg-dëgg mooy faw ñu delluwaat jàngaat suñu diine xamaat kan mooy yàlla màggaayu yàlla waaye tey ñu bari ci ñun dañoo réere màggaayu yàlla ndax lan mooy waxatuñ ñu yàlla waaye leneen la ñuy wax ak ñeneen yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla mi nga xam moo ñu bind def ñu nekk nit wala qad karram naa bani aadama te ci moom la ñuy dellu bés bu ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nañu xam yàlla mooy kan huwa allah wallahu alladi laa ilaha illa huwa aalimu alxaybi walshahada huwa arrahmanu arrahim yàlla mooy kan huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almalik alquddus assalaam ba mu jeex yàlla mooy kan ayatul kursi dix phrase subhanallah ñu ngi ci ayatul kursi boo ko jàngee ñuy wax ci màggaayu yàlla waaye tey ñu bari ci ñun dañoo réere yàlla ndax lan mooy ñu war dañuy dem bu ñu jaaxle dañuy gëm nañ nee nañ gëm nañ yàlla waaye nag ñu bari ci ñun wóoluwuñu yàlla déedéet ñu ngi naan iyyaka na'budu wa na nasta'in waaye du dëgg ndax dañuy dem ci njabarkat dañuy dem ci seetkat dañuy dem ci ay gisaane dañuy dem sànnikatu pettaaw te ku dem ci ñooñu soo jullee 40 jours yàlla soxlawul te bu ñu la waxee nga gëm génn nga ci lislaam sa relation ak yàlla dagg nga ko coupé nga ko mbaa bokkuloo ci ñooñu mbaa ne di takk ay téere woo di am looy denc feneen jàpp ni lool moo lay moo lay dindi lor loolu moo lay jàppale nga fàtte yàlla ana yàlla mi màgg mi dul gëmmantu bay na law ñu bari ci ñun néew na kër gooy dugg lu dul que ni am na ñu fay utiliser mbir yooyu subhanallah des fois ci oto yi lañ koy ci place yi ci magasin yi ñi takk ko fii ñu takk ay mbir ana yàlla yàlla kon bàyyi na la sa bopp subhanallah beneen mooy ñu bari ci ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñëpp ko bëgg yowmal qiyaam lu ñu yàqamti mooy nekk ak ma biir aljana yàlla buñ ko yàlla xañ yàlla nañ ko yàlla may waaye nag ñu bari ci ñun mooy yonent bi dafa mel ni wóoluwuñ ko sallallahu alayhi joxuñu ko gëddam lu tax mooy lim ñu jàngal dañ ko fay bàyyi jël leneen te nag yoonu aljanna mooy yoon bu yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa yi gis nga boo boo bàyyee ñëpp bu la ñëpp bàyyi woon nga ànd ak yonent bi sallallahu alayhi rek yow texe nga waaye nag boo ànd ak ñëpp ànduloo ak yonent nga perte nga tey lu koy firndeel xool leen suñuy jaamu yàlla ñu bari ñu ngi jaamu yàlla boole laaj de naan mais lii dañu dañ ko yàgg gis rek lii lañ yàgg gis ñu koy def mais lii dara da cee nekk lii dara da cee nekk ndeysaan xoolal exemple nit ñi tey bu ñu sëlmalee yonent bi lan la ñu jàngal bu ñuy julli boo sëlmalee ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lum ñu jàngal mooy ku nekk fi nga toog individuellement yow rek na nga wax astaghfirullah ñetti yoon nga ne allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalal wa ikram nga wax subhanallah 33 fois nga wax alhamdulillah ba mu mot 33 fois allahu akbar ba mu mot 33 fois muy 99 lu koy centième téeméer nga ne laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala kulli shayin qadir yàlla insha allah jéggal say bàkkaar yu wees nga daal di jàng bu dee suba la ak timis nga jàng ayatul kursi yu benn yoon qul huwallahu ahad ñetti yoon ba mu jeex qul a'udhu rabbil falaq ba mu jeex ñetti yoon qul a'udhu rabbin nas ñetti yoon bu dee tisbaar la tàkkusaan ak gée ayatul kursi yu benn yoon qul huwallahu ahad benn yoon qul rabbil falaq benn yoon qul rabbin nas benn yoon gis nga ak askar yu yonent bi jàngale sansam te mu wër nii ku nekk fi nga toog danga koy def doo ko wax ci kaw yow rek fi nga toog waaye ñun tey ñu bari ci ñun li yonent bi jàngale dañ ko fee bàyyi jël leneen mooy lan da ngay buñ sëlmalee rek kenn day jékki-jékki ci biir jàq ji moo xam imaam la wala kii doon eh, eh, liqaam eh, wala boo kenn jàng leen faatee ayatul kursi ak wax wax wax ak salaatul faati ak luwaay waay wax wax wax yonent bi daanul def li sallallahu alayhi wa sallam ba pare est-ce que da daan wax Aboubacar jëlal waxal nit ñu ñu wax ci kaw nañ wax léegi lii wala moom ci boppam mu ne jàng leen ayatul kursi jàng leen salaatul faati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déjà mosul jàng salaatul faat existé wul woon ci jamono yonent sallam saxaaba yi li ñuy bari radiyallahu góor yi jigéen ñi kenn mosu ci jàng salaatul faati xamuñu ko woon. imam malik abu xanifa shafi ahmad ibnu hanbal ñeenti ngiri ak yeneen ngiri kenn xamu ci woon salaatu faati existé wul woon waaye ñu bàyyi fi li yonent bi jàngale sallallahu alayhi te nee nañ kat gëm nañ ko wóolu nañ ko waaye lu mu ñu jàngal lañ ko fee bàyyi jël leneen te nag adduna bi lu muy bari nit ak jinne ci biir bàmmeel kenn rek lañ lay laaj ci moom kenn rek mooy yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam boo duggee ci bàmmeel kooku lañ lay laaj ginnaaw bañ la laajee kan mooy sa borom luy sa diine mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye nag yonent boobu ñun ñu dañ koo wóoluwul ñu bari ci ñun ndax sunnaam dañ ko fee bàyyi mooy def askar comme ni ñu ko ñaan mais gis ñu ku nekk na jàng ah xuloo fukk xuloo ak benn ah, nañ jàng ah, faati ak salaatul salaat bu waaye man a ah, wax wax ñeneen wax lii kii ñiy wax ñi naan amin yonent mosu ko jàngale sallallahu alayhi wasallam kon lu gën a wóor mooy ñu bañ ko def ndax yonent mosu ko def sallallahu alayhi wasallam yonent lu mas a mooy ku nekk fi nga toog nga jàng nga wax li nga war a wax